daanaka présentation bi man na li nga wax it teg ci dara dina xaw a jafe lool waaye ko xam bis bi importance bi am ci mu murit jàpp naa ne président de la république mënut a def dara lu dul nii mu def ndax kër gi dañoo yàgg gunge projet bi mais dañoo yàgg gunge président Ousmane Sonko ndax ni ma ko waxee léegi sëñ Cheikh Anta ci biir euh, campagne présidentielle 2019 président Ousmane Sonko bi mu ñëwee tasanteeg fii mu guddi ndax mi ngi egsi woon Mbàkke su mu juum boobu 22 def fi meeting fii ci Mbàkke ci ci terrain gaar bi bi mu paree mu guddi fa lañ def sëñ bi fatt mu waroon dem Linguère ci guddi gi mais def ko jaral mu fanaan ne du ma génn Mbàkke mukk te gisante ak sëñ Cheikh mu fanaan ba xëy suba ma jokkoo ak sëñ Fallou mu ne ma sëñ bi ubbi na fii la jógee jaar ci sëñ Amidou Mbàkke mii moom sëñ sëñ sëñ siirim sëñ am doo fa jógee dem Linguère keroog waxtaan wi maa ngi koy fàttali léegi sëñ Cheikh Anta mu nekkoon waxtaan wu diire sëñ bi fàttali ko ni mu war a taxawee ci réew mi keroog bu ñu fa waroon def une heure temps def nañ fa trois heures temps tellement waxtaan bi amee woon solo ak idées fi doon génn tax na diggante boobaak léegi sëñ bi président Ousmane Sonko fu mu déggante ak man deme an sëñ Cheikh yaa ngi koy dégg di nemmee kóllëre ko moo tax tey ji bis bi na ñëw moom mooy ñëwal boppam mais tax moo tax démb président Bassirou Diomaye Diakhar ne woon noo leen man def na ngeen dem teewal ma fa ci ndigalul premier ministre am Sonko mm. euh, kër gi am waay loolu ci gouvernement ndax tey liggéey boobu ñu def ci jëm ñaajo ki ko jiite muy ministre Ousmane Diagne muy ministre de la justice sëñ Cheikh Anta mii la yaakaar àdduna ak laaxira mooy sëriñam léegi man ak moom ñoo tàggali ko mu ne ko Daaru Salaam laa jëm mu ne bu eggee nag ma si yàlla sama sëriñ sëñ Abu ak sëñ Cheikh Anta kon jàpp naa ne Daaru Salaam moom kër gu yàgg bu projet bi la moo tax ñu ngi sàkku sëñ Fall nga wax sëñ bi mu ñaanal président Bassirou Diomaye ndax yaakaar yi rëy na lool yaakaar yi nag pour ñu mën ko réussir yaakaaruñ ci dara lu dul ñaan yàlla ndax ñaan moom mën naa fekk fu dara ne ko mu def fa dara mën naa fekk fu dara nekk yi barkeel ko kon gëm nañ ne boo leen ñaanalee projet bi yàlla dina def jàmm ndaw yaakaar yi am yàlla dina ko mott la moo tax ni ko Mamadou Lamine Bara waxee bi ñu ñëw bàyyiwuñ kenn ndax Ahmadou Lo mii sama ginnaaw mooy coordonnateur département Mbacké bi fii yëpp Mamadou Lamine Bara Lo DG comme ni nga ko waxee honorable député Soxna Fadam Mbodj ak mboolem ñu ànd ci délégation ndax te ji bu président Ousmane Sonko mënoon ñëw premier ministre mooy ñëwal boppam président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mënoon ñëw mooy ñëwal dina fas yéenee gunge xalif bépp projet bu am ci liggéeyal ko maamam borom gaawaan dina gunge mooy porte-parole kër bu am pour dinañ ko a jaar népp noo a gunge Daaru Salaam gunge Daaru Salaam gungeen waraw te président Bassirou Diomaye jël nañ ci engagement ndax kër gi defal nañ ko lu ko raw mais njaboot gi bokk ci kër gi defal nañ ko lu ko raw ndax am di Moustapha ci kër gi la bokk te dugg na ay weeri weer kaso ngir projet bi nii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sëñ Cheikh Anta yàgg na ko ñaanal waa kër gi yàgg nañ ko taxaw kon daal ñu ngi ñaan yàlla màggal gi nga xamante ni benn bis la borom borom bis bi di màggal mooy bis ba magam ju baax ci ñibbisee mu jàmmarloo noonu da amul mbégte mu raw mbégte kon mbégte moom ci amoon ba tax mu di ko teew yàlla na suñu borom sotti mbégte moom ci senegal ba réew mi doxee ci naat ba faaw asalaamaaleykum wa sëñ Cheikh maa ngi yëkkati ay kàddu ci ndigalu sëñ seexanta Anta ginnaaw boo duggee ci biir ànd ak délégation bi tam wax la ci làmmiñam na la bu ma xamoon na yaay ñëw sax damay téye sëñ Bas ndax lii rek la ko sëñ Muntaxa dox doxloo wax ak yow kàddu yi mu wax ak yow ci biir ak délégation bi nga àndal nga génn mu ne ma àndal ak te boo demee nga yëkkati ay kàddu kàddu yi ci jëkk mooy kàddu yu cant ak kàddu yu ngërëm ndax sëñ Abdoulaye dafa wax ne ko am bis ngay ngay yabal ndaw tànn ab xaritam yabal ko fa dana xam ne bis ba ñor na la waaye rawatinam nga yabal xarit waaye nga yabal ak njabootam ndax sa maam maam Cheikh Absa ko ne xam ni mu demee ak Serigne Touba waaye ni mu demee ak maam Cheikh ngir ab sa mbàkke yaakaar naa ne kon buñ lay yabal yabal la ci kër gi yabal nañ la ci sa nga ñëkk a ñëw jaar ci sëriñ Abo Mohamed mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ bi di jëwriñu Daaru Salaam nee na boo fa yemoon mu doy waaye nga jàll si ci moom mi nga xam ne kàddu gu muy wax moom la koy wax loo sëriñ Cheikh nag wax ne baat bi mu la njëkk a wax bu fekkoon ne listixaar la dañuy wax ne listixaar gi tey jii suñ borom da koo teg ci mu jàpp tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ñaar fukki fan ak juróom-ñett la sëñ Touba sañ ci dëkk bi ci weeru safar fukki fan ak ci weeru safar la sanc dëkk bii ñaar fukk ak juróom-ñett mooy arafi alquran ñaar fukk ak juróom-ñett mooy arafi Touba tey di ñaar fukki fan ak juróom-ñett dëppoog bis bi ñuy ganale Serigne Touba fii ci Darou Salaam waaye dëppoog bis bi nga xamante ne bii dañ koo dañoo woote ci jam ñaajo ngir defaraat lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu yoon te ku ne xam ne ne adduna balaa ja jàkk l'islam lépp sariya moo di aw yoon sariya bi nga xam ne moo tënk lislaam moo di aw yoon kon buñ ne dañuy réformer ngir tegaat luwaay yi ci aw yoon ka ko jiite di taalibe maam Cheikh Anta di sëñ eh, di di di Ousmane Diagne baayam alaaji Serigne Diagne nekkoon jëwriñu sëriñ Modou Mamoun ca Côte eh, eh, Thiès ba muy nekk cot d'Ivoire am na foto buy génn ñu koy publier Ousmane Diagne ne ca di xale bu ndaw ay 1966 booba sëñ Fallou moo yabal sëñ Abdoulahat Côte d'Ivoire mu dem fa booba alaaji Serigne Diagne baayam moo fa nekk Ousmane Diagne toll ci jàng foto bi si Abdoulahat teg ci loxoom ci boppam ci boppam boobu la ko teg kon xamoon na ne bopp boobu mu doon teg loxo bi war naa dem ba luwaay yuy tënku ci Sénégal war a tege ci boppam kon yaakaar naa ne tey jii ñëwu leen ci làmbatu lu mel na it li sëñ bi waxoon euh, président Ousmane Sonko ndax ñëwal na boppam fii sëñ bi it yàgg koo bàyyi xel yàgg koo jàppale yàgg wax it ne projet bii de bu fekkoon bàyyiwu ma bind danaa ci bind loo xam ne danañ xam ne ëllëgi Sénégal mi ngi ci projet bii kon bu yàlla dogalee bis bii sëñ Cheikh nga ñëw fi ànd ak délégation bi ak ni mu xatee ñëw ci sëñ Abo ñëw ci sëriñ Cheikh sëriñ bi daal nee na li muy def mooy ñaanal leen yàlla li mu la wax léegi rek ñaanal leen yàlla fa ngeen jëm ngeen àgg fa te mañ am benn ndog diggante Ousmane Sonko ak euh, euh, président euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay nga xam ne ànd bu tuddante ay doom am na ci ànd boo xamee ne lépp natt bu leen dal ci àdduna ñoo ko ànd ba yàlla àndandoo jox leen pouvoir bi yàlla na yàlla boolee noonu seen seen mbir ba seen yéene ci Sénégal ak yaakaar yi ndaw yi am ñuy bàyyi xel ndaw yee dem barsàq te dara taxu leen a dem barsàq ngir projet bi ku mel ne sëñ Moustapha mi tëddoon kaso ak ku mel ne ay nawleem sëñ Assane Mbacke ña ca mel ne moom di ay Mbacke Mbacke tëdduñu kaso ngir lu dul lan ngir sowe ak jàllale procès bi ñooñee sëriñ bi nee na daa bokk ci ay ndénkaanam ñu bàyyi leen xel te xam ne lépp loo xam ne échec na ci procès bi rek daa mel ne ñooñu la échecal kon nag yal leen yàlla sàmm te taxawu leen te àggale leen fi ngeen jëm te musal leen ci ndakk yëpp te ñaan googu mu leen ñaanal ci boppam ci biir boo ko dégloo nee na fu wërsëg mën a ne ci adduna bi fu jàmm mën a ne